waaw central débat la boo xam ne ñëpp xam nañ nu mu demee te war nañ ko mën a régler Cheikh Anta bi mu ñëwee loolu mooy combat wax ma rek ban pays mu développé wu ci langue beneen une langue étrangère nekkul alors gis nga loolu éducation nationale nee na 2023 2024 dañ koy généraliser nee nañ dañuy dugal langue nationale yi foofu nag li ma leen wax mooy si rat la communication léppay daanu lan mooy langue nationale en fait langue du milieu mhm. xale bi soo ñëwee fekk ko ci làngam ci milieu bi da nga koy jàngal ci langam moi j'ai commencé comme éducateur préscolaire en Casamance j'étais à Dianki et j'enseignais en Diola je faisais des recherches foofu nag xale bi soo ko fekkee ci langam nga koy jàngal mais boo koy jàngal ci langam day gaaw parce que booy def activité numérique foo waroon a wàññi wàññ yem ñaar fukk vingt boo koy jàngal ci langue nationale da nga yëng da nga yegg téeméer ah, kon ah. gain am na bu baax séance yi nga war a def pour xale bi mën a lire lii fantu boo ko defee bu waroon nekk juróomi séance wala juróom-benn séance ci ñaari séance boo ko defee mu yegg kon gain am na expérience mu nekk def nañ ko man sam bopp dama porte woon l' expérience de madame Wade à Néné-Fesha avec les essais en milieu bédique où on enseignait les tout petits en bédique. Kédougou ak Kédougou mu amoon aussi à Mithio et à Kékérési en milieu pulaar ñu amoon cette volonté d' vers Malinda en milieu jalonke nga xam ne jalonke yi ñoo am aussi bien en Guinée qu'au niveau de Kédougou mais foofu dañu koy leeral. su ma ñëwee di jàngal xale bi ci wolof dama koy jàngal ci làngam langue boobu dafay nekk le médium par lequel il va vers l'appropriation du réel mais xale bi ma ñëw sixième rek naan dama koy français day metti mais ci biir dugal langue du millier boobu dafa am nag un taux dégressif xale bi bu ñëwee séyi mun naa koy wax ci làngam bu ñuy dem CP bu may dugal français bi wax ko quatre pour cent de wolof. bu ñu avancé tuuti. Euh, dogguma la multilinguisme boobu noonu est-ce que du métti trop trop. aussi ci xale bi sachant que xale ak capacité bi mu am. ci xel boobu moo baax parce que toutes les recherches ont montré que cette neuroscience la euh, le réseau synaptique nañ mu mu mu ñu mën a établir ci véritablement ngay jàng plusieurs langues te cette période elle est fraîche xale bi fu muy amee zéro six ans boroom xam-xam yëpp dañ ko wax la tranche d'âge zéro six ans. constitue le terreau fécond sur lequel se bâtissent les réussites futures xale bi su muy juddoo zéro ba six ans fële lépp di réglé moo tax kenn waru ko dis-moi les six premières années de ta vie et avant six ans xale bi foofu langue mu ne mën na ko am te gis nga foofu plus nga am nag nga nekk multilinguisme mu am multilinguisme ci la sa réseau parce que dañ koy travailler rek mhm, mhm. ci la sa réseau di gën a développé mhm. ngay mën lu bëree bëri te y une période boo xam ne nag boo ko traversé dootoo ko man tey yow ku la yóbbuwoon Chine doo fa làkk chinois. ñi xaaw alors que sa doom ñi xaaw. ñi xaaw de laa ci donc toi tu as fait sa doom tey bu demoon chinois bu demoon Chine rapidement en deux mois mu làkk chinois donc loolu du inconvénient. d'ailleurs d'ailleurs d'ailleurs y a le moo tax ngay gis ñoo xam ne dañuy def arabe français. Mhm. y a le multilinguisme am na ñoo xam ne dañuy def arabe français anglais. te xale bi da koy dominer parce que période boobu l' esprit est loo ko loo ko jàng rek xale bi da koy mais bàyyi la ma yeggale ci langue nationale ñu am une bonne compréhension les du milieu j'ai parlé du taux dégressif parce que quelqu'un m'a dit mais tu dans ce pays là nous on a des problèmes pour consolider cette nation on a nos Jola on a nos Serer on a nos Bédik on a nos Bassari comment se fait-il ñuy làkk-làkk yooyu du ñu déggante mais dañuy utiliser la langue du pour que xale bi gaaw a des acquisitions ñu dem vers un taux dégressif bu ñu defee 100 pour cent de wolof def 80 pour cent de wolof fekk ñu ngi dugal tubaab def def def xale bi mën langue bi dem. dafa war a clair il faut une bonne pour cela aussi je pense que euh, ñu def benn reconstitution bu large.